Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. site TV di leen toppal làmb ak ñu bokk ci làmb di ci def lu am solo fu ñu mënti nekk rek ñu fekk leen fa dekk leen suñu micro waxtaan ak ñoom ci wàllu làmb moo tax tey ñu seet ki nga xamante ne bi mooy Ibrahima Diop di njiital li nga xamante ne bi mooy euh, Kayor Production ñu fas yéene waxtaan moom ci biir làmb début ba fi mu toll dañ koy bàyyi ma nuyu nuyu ñu ñu suivre su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi. maa ngi lay fay Thierre di la nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay du nuyu sa caméraman bi Paco di nuyu borom kër gi eh, Abdoulaye Dembale di nuyu encadrement Kajoor production bi yëpp ak encadrement Kajoor immobilier service di ñu jël nuyoo bi di ci jiital suñu papa Père Bourkhane ñoom seex ndoy mbay jàlloo ñoom lamin ñoom Moustapha Ndiaye sama xarit ay ñoom Baye Ndiir ñoom Abou Thiam ñëpp ñu bokk ci Kajoor production rek ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen jox seen wàccuwaay di nuyu suma papa ak suma sëriñ sëriñ Mourtala am sëñ bu Boussa Dieng ñu nekk suma papa ak suma benn grand frère bu ñuy wax Yoro Diallo ak Cheikh Touré suma xarit depuis États-Unis ak ñoom Baye Ndiaye Zimbo depuis États-Unis Ousmane Ciss Parcelles Assainies ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu beneen bi ci topp may wax inna lillahi wa inna ilayhi di jaale monde culture ndax làmb kenn mënu koo tudd te tudd culture di jaale tam monde presse te site internet kenn mënu koo génn ci presse ñu dellu di leen jaale alaaju Ndate Diop bu RFM ñu leen koy jaale di ñaan yàlla yàlla na suuf sedd ci kawam te yërëm ko te jéggal ko ñu jaale tamit suñu papa Maguette Wade moom it am na li mu def ci culture yaatu na li mu représenté ci culture yatuna na ñun bi ñuy nekk dañ daan tok di xaar samedi jot ñu toog seetaan télé variété daan ko sétane ñu koy jaal wat képp ku nek ci monde culture wa axlu làmb ñu koy jaal ñëpp dal di ñaan yalla na suuf oyof sen kaw yalla leen yalla yërëm te jéggal leen genre général biñu genn nak lepp luñ ci jaamu yalla yalla nako yalla nangu appel biñ ci joggé lepp luñ ci jaamu yalla na ko suñu borom nangu mo kazu rajab luñ ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu wasaare ko ci askanu suñu gaal defal ñëpp jàmm ci barke Seydina Mohamed. am na solo comme ni mu ko waxee rek euh, di profito di jaale euh, képp ku nekk ci presse rek muy Zosu Dete Diop moom suñu confrère la ah El Hadj koo xam te ne bi suñu confrère la doon ci liggéey lu am solo waaye ñu ngi koy ñaanal suñu borom xaaree ko àjjana kan mooy Ibrahima Diop. waaw Ibrahima Diop de benn ndaw la rek. bu juddoo Pikine yaroo Pikine màggee Pikine dafay léppam Pikine daal waaw. Ibrahima lu ko poussé mu dugg ci biir làmb. waaw loolu boo ci laajee nañ ci sawar wax li ko poussé mu dugg ci làmb dafa juddoo benn gox boo xam ne dafa nekk gox bu ñu bu bu bëgg làmb muy Pikine. ci biir ci biir pikin nag mu juddee ci gox boo xamante ne exception loolu ngay gis ku ci dund làmb. Mm. MCS International, études et formations à l'étranger. Vous êtes élève du terminal, bachelier ou étudiant, obtenez votre admission dans les universités françaises, américaines ou canadiennes. Grâce à MCS International, vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un suivi pour la réalisation de vos projets d'études supérieures à l'étranger. ndax football la ñuy xam jàng affaire yooyu muy cité Icotaf 2 man ma ñëw nekk ko am ne suñu borom def natt moom ma bëgg làmb champion yi bëri Pikine yëpp ku ci nekk ma la daan topp di la supporter di ànd ak yow di dem ci say làmb ba virus làmb duguma yàlla mi dara tëwul ama seen combat bu mu mus a mu mus a bëree maa ngi ci cumikaayam taxaw ma koy nuyu au di nuyu jabaram lañu xujja di nuyu champion yi nekk pikin yëpp di nuyu Boy Niang Ama Balde soq ñoom ñëpp ma leen nuyu di nuyu seeni soxna di leen ñaanal jàmm ak salaam seen bés yi ñu jëm nii yàlla defal leen ci sutura ak jàmm ak xéewal yàlla may leen ci ay ndam daal mhm. amu daal moo ngi noonu ndaw la bu dëkk Pikine juddoo fa yaroo fa virusu làmb foofu la ko duggee daal. kon mun nañu wax ne kon virusu làmb fi mu la duggee mooy fi nga nekk ci Pikine ak mbër yi nga doon fréquenté ci biir Pikine ku ci mel Eumeu Sène Boy Niang Ama Baldé di nekk seen cuumakat di leen jàppale ci lu bëree bëri ci nga dem ba xam ne man mii kat war naa mën a nekk promoteur. waaw xam nga nit boo nekkee ci benn mbir. yàlla def nga am avant tout booy dugg da fekk nga na amour bi jiitu. Mm. bul jiital aspect xaalis bi jiitalal aspect amour. boo amee amour bi rek après loo ci fekk rek da ngay xam ne loolu la ci yàlla sédd te xam ne loo ci am rek da ngay jàpp ni loolu mooy li ci sa wërsëg nga jël ko aspect biñ ci amour bi tey nit bu daan ñëw nga koy jàppale ci làmbam dangay dem ba tool foo xam ne da nga naan man mii kat comme ñi may sollicité bëri na te làmb ji facteur de développement la te dañuy créer ay emploi pourquoi ñu nit mënuñu indi suñu contribution ci développement réew mi ndax loolu dafa bokk ci développement ndax son excellence loolu la bëgg président tey jii ay ndaw lañu li ñu am fii lañ ko amee te biñ ko amee fii lañ koy delluwaat ci ndaw askan bi ndax lu ñu am ndawal réew mi ñoo tax ñu am ko kon tey dañ koy delluwaat ndawal réew mi moo tax ñu ñëw dañuy tëgg ay làmb ku ci nekk la cay sa wërsëg nga mën ko jot dem yóbbu sa kër faj sa soxla ba ci ñëpp loolu daal bokk na ci li tax ñu dugg ci daal. ñu gis sa première entrée ci biir que indi journée bi nga xam tamit journée des espoirs la woon muy journée boo xam tamit ba léegi amateur dañ koy waxtaanee ndax journée bi ñu mel macha allah muy diggante ki nga xam tamit mooy euh, di rak ak ki nga xam tamit mooy Junior soit soit ñaar ñaari xale yooyu nga taxawal ko fan la soit bi jik idée bi. waaw xam nga moom. mag ñi dañuy wax naan du biir day xëy xëy rek wasin te ñaar ñooñu ku leen xooloon xam ne ay yaakaaru làmb lañu ba pare ñu nekk ay rakki champion seeni mag am lu ñu def ci làmb ñoom it ñu nekk seen yoon di def lu lu loo xamante ni daal méngoo na pour ñoom ñaar ñu boole leen tey man lañuy gis mais am na ñu ne ci ginnaaw. ku ci mel suñu papa xan bi ñu ma wooyee ñu waxtaan si mu ne ma combat bi ak bi man ko léegi baal ñu xool ko bi ñu toogee ñu def analyse yi ñu xam ne komba boobu komba amateur la te combat la boo xam ne tey buñ ko taxawalee dina bokk ci li nga xam ne dina mën a am indiwaat leneen ci làmb bi ci waxtaan waxtaanee ñu xool ne komba bu jaadu la te komba bu war a neex ndax ay naataangoo lañ ndax booy boole boo bëggee lu neex da boole ay naataangoo ñu ne nag pourquoi pas ñu tëgg leen yàlla def nag ñu leen di tëgg seen i encadrement ma leen di nuyu ci côté boobu di saluer geste yi ñu def ndax euh, naqari ñoo waxal mën naa ni waxtaanu benn benn guddi la ci guddi gi la ñu waxtaan ñu xëy suba ku ci nekk jël sa avance. te wax dëgg yàlla am naa mbégte ci ñoom am naa kontaante ci ñoom rëccuwuma it li tax ma tëgg leen te ñoom it yaakaar naa ni it rëccuwuñ nit lu tax ma tëgg leen ndax sant nañ ci yàlla lépp luñ ci wax wax waxoon ak ñoom suñu borom suturaal nañu dimbali ñu ba mbër buñ ci engage woon ci bés boobu suñu borom def nañu wàccoo ak yow un mois avant combat kon loolu sant yàlla la du njàmbaar nag du ngóora du man man ndimbalu borom bi kese la dañ koy dellu santewaat ko yàlla bu baax a baax daal. kon journée boobu am nga ci satisfaction totale. waaw am nañ ci satisfaction totale à cent pour cent ndax satisfaction totale bi li aspect yi ci nekk dafa bëri même bu doonul xaalis sax nga woote. sa première journée. ñi la xam ci làmb xamuñu la en tant que promoteur dañ la xamoon en tant que koo xamante ne day ànd ak mbër te du ñëpp saxal la ci xam yow mii sax daawoo ma gis mais am na ñu ma ci daan ñoo xam te ne ñu ne ci siti xamoon nañ ma ndax man dama daan làqutu ci ginnaaw daaw mu bëgg feeñ ci kanamu caméra mm-hmm. tey nga woote bés bu toll noonu mm-hmm. askan bi ñëw wuyu si la loolu sant yàlla la loolu mooy réussite bi ci njëkk beneen réussite bi ci topp tey nga woote ginnaaw bi nit ñi ñëwee am na ci ay doomu aadamam am te ne foofu la ñuy jëlantee ay contact foofu la ñuy xamante xamante boobu ñuy xamante ëllëg tuddantey doom mën na ci am ëllëg mayantey jabar mën na ci am léegi famille juddu na foofu jaaykatu kerem bi ñëw na mi ngi jël ci wërsëgam pour yóbbu war a xëy suba am lu mu ci toggal njabootam tey loolu bu amul woon est-ce que loolu dina am loolu du am tey loolu am amaana suñu borom ci suñu loxo la ko jaare te du suñu njàmbaar du suñu mën-mën ndimbalu borom bi kese la mm. ñu dellu santewaat ko yàlla bu baax tamit nga woote nit ñi ñëw ci jàmm ñëpp ñibbi ci jàmm kenn gaañuwul kenn xeexul kenn xuloowul mm-hmm. réussite bi ci njëkk tam loolu mi ngi ci waaw te dañ ciy santewaat yàlla bu baax a baax mm-hmm. am ci réussir total am ci satisfaction total yëg sa bopp tamit ci journée bi macha allah ndax ni la doomu aadama wuusee nga jógee fa mu nekk ndam ci yow. ma xaadimu rasool nag dañuy ubbi du lundi au dimanche ah dama ne kon nag boo bëggee ay kar yu baax dawal gaaw seeti waa établissement xaadimu rasool ña nga nekk foofu ca Parcelles Assainies ca booru marché police établissement xaadimu rasool le choix de.